laqit lisaani waxlulan minhu luqade wajalhu daakiran wa shaakiran abad wajal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi rashida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam yaa xayra dayfin ata bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi inni uhibuka yaa shahra siyaami bila gisin fa ahlan wa tarxiban bila adadi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 weeru koor ñu ngi ciy andi lenn ci ni Serigne Touba sunu yaakaar daan waajalee weeru koor ak yitte jim ko joxoon ak nim ci xëre woon ba ñëpp xamee ko ko euh, weeru koor dafa doon loo xam ne bu ko masaan di waajal euh, ñépp dañuy xam ne euh, kii kat jox na ko yitte joo xam ne nii rëyaay gi ëpp na te it moom nee na weeru koor mooy sama mbóot weeru gàmm mooy sama weer. ñaari weer yooyu daanaka ñooy weeram da ko fonk lool chahru ramadana sirriya rabiul awalu liya nga xam ne nii waxtu yi ñu nekk maanaam ci baraxlu bu masaana jot ku masaan di ñëw di ko laaj dara danaa la xanaa danga koy waajale gan gu tedd gi loolu la daan wax mu wax ne weeru koor ak weeru gàmmukat ñooy samay weer eh, te ci la ma suñ borom fegale bépp safaan shahriya shahru ramadana wa rabi' xat sax-saxa ila siwa umril mabih dellu waxaat ne weeru koor ak weeru gàmmu seedal nañ ma ne bëgg naa sama maanaam ñoo ma seedal sama bëgg yàlla ñoo ma seedal sama bëgg yàlla ci la ma son borom dàqale tamit ab safaan shahida li shahru siyaami wa rabi' bi xubbi rabbiya wa sax-saxal mabia weeru koor tamit yàlla defal ko ci ak jagle ndax ci la njëkk gisee yonante bi sallallahu alayhi wa sallama ci jàkka jooju ci daaru xudus daaru xudus ci ama jay ci lixtikaaf ba mu doon def di 1895 ci weeru koor it ci la ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallama andilee al wirdul maqut mu jóge ci sunu borom tabaraka wa taala boobu sëriñ bi mag nga gànnaar weeru kooret mu dund ci lu metti ndax bi mu nekkee ca tukki ba fii xaybatil baxriya euh, nee na am na weer woo xam ne nii benn xaal la bënn nga xam ne nii bu euh, dog jotee ak xadd ci lay dundale sunnat sa ci xaal bi tëjaat ko ba subaate nga xam noonu la wooree ba koor ga jeex nga xam da ciy mos tuuti ci loxoom ci xaal bi euh, ba subaate nee itam ba mu fa nekkee jamono at yooyee bu fekkoon ne du xam-xamu ilmu nujum bi ko suñu borom baaxee muy xam-xamu baatin kon du xam ndax Shahbaan tàmbali na wala jeex na wala weeru koor wala jeex na waaye xam-xamu baatin borom mayoon na ko ci weer wuy accès dana ko xam fan la toll ak fan la te loolu sëriñ Abdul Ahad wax nañu ko fii daal ne sëriñ bi de wax na fii ne man de wenn weer du dem te tàgguwuma wenn weer du ñëw te nuyuwuma Shahbaan tàgguwuma Ramadan nuyuwuma te loolu moo ko bindal boppam ne shuhuri wa ayyaami gadan li weer yeeg bis yeeg yëpp dañ koy dañuy ñëw di di ko seere di seere ab liggéeyam moom la sëñ Moussa Kanaan keroog la bis yeeg weer yi ak saaxaati soppi ko ay jëmm di xar aadaati di ko dikkal te naa ko noo lay seere yowmal qiyaamati li lay kabiire koor googu moom la sëñ Moussa Ka di wax ba tey naan fa la wooree keroog euh, amul muurum koor julleem nga wéet a wéet gisul geneen góor xuróofi xat aflaxa man tazakka la bamba way def muuri koor xat zakka nga xam ne ni muurum koor ba mu ko bëggee joxe sax amut ku mu ko jox ba tax na dafa way xat aflaxa man tazakka moom la def ak xaside yéene ci muurum koor kon kon xam ne ne euh, wéetaay ak ak ak métti ak méttit ak tumuraanke foofu la mën a yem waaye taxut mu nangoo bàyyi dara ci li ko sun borom tabaraka wa taala digal nee na itam fonk gu ma fonk weeru koor tax na li ci nit ñi amee man balaa bala ñoo um la ma ko suñu borom defal maanaam li nit ñi amee ci weeru koor buñ defee seeni ibaadaat ak seeni coonoog lépp man bala ñoo um ci biir waajtaay bi yitte jëma ko jox ak coono bi mooy tax suñu borom dama ko jox xibaatu man lii qaada xayra fayadaan tawajjahat lii qabla chahri ramadan ah, mu doonoon nit koo xam ne ni fonk gum fonkoon weeru koor tax na am na koor goo xam ne ni ci njaareem ba mu digalee mbooloo mi ñu séntu ko ba gis weer bi da leen woo ne leen ñëw leen nag ma wax leen ñoom ñëpp ñu daldi ñëw mu mbooloo mu bari mu ne leen weeru mag bi kat agsi na ma bëgg ku mën a boole woor ak liggéey bi nga boole ko ku mënta boole ñaar yi nga bàyyi liggéey bi tey woor am ca ku ne ko man de mënumaa woor mu ne lu tax mu ne ko awma lu ma xaddee ak lu ma dogee mu ne ko bu ma xamoon ne lu ñàkk fayda loolu nga may doye de duma la wuyu sa moroomum jaam sax boo ko dee liggéeyal xanaa dana la jox loo lekk waxuma la ku toll ni suñu borom tabaraka wa taala kon nag yaakaar naa képp koo xam ne nii kat moom taalibeeb Serigne Touba nga képp koo xam ne nii eh, Serigne Touba mooy sa yaakaar war ngaa fonk jaamu yàlla waaye war ngaa fonk weeru koor bu baax a baax kon nag ku mu doon ci ñun rek eh, waajal weeru koor war naa feeñ ci ay jëfam war a feeñ ci ay ay yëngutoom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 in uridu illa al islaaha ma stataatu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala